aousubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk téléspectateur seen média asalaamaaleykum mbokk soppe xarit am di jàmm yéen ñi nga xamante ni yéen safoo seen média à chaque fois toog seen kanamu écran di ñu seetaan di kontaan ci li ñuy def di aimer di commentaire di ñuy encourager ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla nañu ko yàlla boole te mu doon li gën si ñun doon suñu njiglaay foofu dugg ci kër kilifa diine yi dugg ci kër kilifa aada yi dugg ci kër waa jàngu bi di leen ñaanal yàlla ya bàyyi leen fi ñu yàgg fi lool te te di sàkku si ñoom ñaan ndax luñ fi gën a yàgg mu gën a baax ci ñun ndax kilifa dafa baax ci réew jóge ci kër kilifa diine yi dugg ci hôpitaux yi dugg ci post de santé yi dugg ci biir kër yi nga xamante ni xanaa xamu leen ni biir kër yi sax ay ditañ fa tëdd ñii amuñu lu ñu yóbbu hôpital ñii ñu ngi fa tëdd feebar yàlla na leen suñu borom fekk leen ku nekk fi nga tëdd fëgg sa bopp ba tàqale kaa tàqale la ak tawat googu la jàpp jóge ci hôpitaux yi waaxu nànk nag dem ci prison bi prison bi nga xamante ni jombul kenn ñi fa nekk am na ñoo xamante ni tuumaa leen fa dugal am na ñoo xamante ni du seen coobare bopp sax moo leen fa dugal yàlla na leen fa yàlla génnee te musal ñu si ñun ñii toog fii di leen ñaanal yàlla bu fa kenn duggaat ndax ndax prison ku nekk bu ngeen dégloo ci télé bi gis ni dund ci biir prison bi metti na kenn yéene ko kenn nee naa sa noon sax doo ko yéene prison yàlla na fa yàlla génnee ñépp ma jóge ci prison bi nag daal di waat ñëwaat fii ci biir kër gi daal di commencé ko ci suñu g waaw suñu PDG yi sax laay wax di Moustapha Ndiaye ak Papis Touré nekk ba France nee naa leen moom mooy l'homme de l'ombre bëggul sax ku koy woo ci biir émission bi waaye tey nag foog ma woo ko Papis foog ma woo la mi ngi ba France di seetaan émission bi di kontaan ci émission bi di ñu encourager muy kilifa ci biir bi ci biir ci biir seen média bii nii di seen société di waa Win Global yàlla na seen jàmm yàgg yàlla nañ dund ba di dégg kër gi fu kawee kawee kawe lépp lu ngeen ci sonn yàlla na ngeen ko jariñoo yàlla na ñuy dégg fu kawee kawe kawe ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñëw nag waaris yi di nuyu waa régie di ñëw ci góora mi ma jàkkaar lool góora nuyu naa la góora mu baax mi yàlla na yàlla fay la bu baax a baax a baax di nuyu Nestor di nuyu Dabzo di nuyu nag suñu invité bii passé nga xamante ni wàccee na émission ba zéro muy suñu régisseuse bi di Jolie Thiaba émission bii passé gis ngeen ni dafa alaa daw me ndax Jolie lañ tegoon fii nekk régi mu wàccee émission ba zéro seen seen seen duo bi moo jeeba loolu dama ko ree ba sonn noonu la noonu lañ fi nekkee rek bëgg rek ngeen kontaan bëgg à chaque fois ngeen di gis lu bees ci ñun te yeneen yu bees yu bees tàq mi ngi ñëwaat fii xaar leen ko fii ci ñun ma ñëw na bu ngeen gisee tey nii ñu yànjee ñii nduróole suñu yii ñu def macha allah ngeen xam ne tey am na ku jaar ci biir kër gi mooy complexe Babia bii ma tuddoon bii passé yëre yii ñu sol nii mu yànji lool moo ñu ko jox jóge ba Dubaay ñëw nekk sponsor ci biir émission bi di complexe Babia madame Gaye Gaye masaar loo mën ren yàlla na nga mën déwén lu ko raw nekk ca cité Jili Mbay di doomu nday jeeba fu jeeba pikiiroo mu naan fa ay doom mu ñëw gis émission bi émission bi neex ko mu ne yéen il foog ma solal leen te à chaque fois di ngeen xam ne complexe Babia moo nekk ci ginnaaw seen société di ñu dooleel di ñu jàppale yàlla na sa jàmm yàgg yére yaa ngi ni mu jox ko ay jongo ma ñu ko mën a sol ku ko xool compra kontaan ci ku ci bëgg na nga waaxu ba si cité Djily mbay numéro téléphone am 77 548 53 84 madame gay Gaye Massar kontaan nañ yére yi rafet na yàlla na yàlla na yàlla na place bi gën a yaatu yàlla na voyage yi gën a bari ndax euh, jigéen boo gis ma ngay daw te li ñuy daw yëpp pour yokk rek société bi jàppale seen borom kër la jàppale seen njaboot jàppale ñëpp ba jàppale waale su ñun ñii nekk def émission bi kontaan nañ ci yow émission bi dañ koy continuer liñ naan continuité moom la ñuy def ndax bi passé dañoo nekkoon ci fiirange muy jalousie ñu gis ci am retour yu neex émission bi passé dafa neex <laughs> neex ba nit ñi dañoo reetaan ba sonn ñu am ñu bëri doyeluñ ci nag di ñu ko laajaat te ñun yéen a tax ñu toog fii lu ngeen bëgg rek la ñuy def li ngeen ñu wax rek la ñuy def bu ngeen ñu nee def leen ko weer ñu def ko weer comme ni ñu defee woon ci tuuma rek biisaat ko noonu lañu ne émission bii di di di fiirange di jalousie doyaluñ ci yeggali leen ko moom lañuy ñuy eggaliwaat tey muy fiiraange mu yàq lu bari ci ci ci société bi tas na sëy féewale ne yaay ak doom féewale na ay mag ñu bokk ndey ak baay féewale na ay xarit lépp ci fiir ñu bëggoon ci nag continuer waat suñu waxtaan rek ñu bari jaruñu waat ci ñu ni ñu jëlaale ci ay leçon bu ngeen kontaanee rek ñu kontaan ci fiiraange ma ñëw ci sama droite sama tukkuleer bi nga xamante ni dama koo bëgg sama rakk ji jéeba ba ma kontaan ci moom sa rose nag sama rose ala dawme na ah sa rose ala dawme na madame Gaye Massar almaami Malick moo fi jaar waaw gis nga almaami Malick sama yaay sama xarit sama rakku yaay dëgg la kooku dafa weesu sama doomu ndey sax ndax ndaxte sama doomu ndeyu yaay la bu dul woon sa doomu ndey du ñu jox lii wallaay dafa sama doomu ndeyu yaay la mm-hmm. mook sama yaay ñoo bokk benn yaay sax muy ku baax voilà muy ku baax mm-hmm. muy sama tante bu baax bu ma bëgg vraiment lépp lu ma dugg comme ni nga ko waxee rek da ciy dugal loxoom xam nga defar ba mu baax mm-hmm. vraiment yow tamit joor Diop nga def ci lu rafet mm-hmm. macha allah ñëw jël tissu yi ñawal ñëpp ak tout vraiment ngay ku ñàkk kiñaan yow tamit amoo dara ah, nit kat bu la joxee tissu nag wax dëgg yàlla ñëw sponsoriser sa émission loo def lu dul jàdd ko rek daw ñëw ko te bu ko deful woon nga dem jëndi yal na yàlla laf cat rek. waaw mu ngi mooy complexe Babia yi tissu yi li muy ñaw tissu yi muy jaay yii moo ci gën a ndaw presque daanaka tissu boo bëgg am na. naa am na yoo bëgg loo bëgg am na yëpp façon xeetu tissu boo bëgg am na ko fan yi bu mu jógee Dubaï matul sax une semaine. macha allah ma gis mu ngi noonu gis nga te du gisal nga ko sax. am na tissu xew. waaw kay tissu xew ak tabaski bii di ñëw ak lépp ci. tissu xew am na jesner. yëpp a ngi ci am na ay lafaya tissu góor. tissu waa kay am na tissu góor yu rafet. su góor yi am na fa ay jàllaabe góor. yu rafet nga fa. pour sama jëkkër waaw ñii amuñu <laughs> madame Gaye tissu góor yi tabaski bi sama jëkkër ak suñu PDG yeeg suñu suñu suñu waa waa léegi man damay laaj waa àdduna léegi moom. Ah. nee na ñun amuñu jëkkër mu ñuy dóor di ñu saboté noonu moom moo am léegi bu fekkee moom bëgg nañu kay yéene nañu dëggantaan dëgg la yéene nañu ah. na jël ak mel ni ay Aïcha mu partagé mari bi mu jox ko mari bi mu nekk sa ñaareel gaañoo ma ko gën a ah léegi kon bu ñu dóor ay xeer rek gaañoo ma ko gën a ante jeeba bugguma nag ante jeeba bugguma <laughs> dañ lay ñaanal jëkkër partagé les mari da ngeen di dàqee madame Ndiaye na partagé yow nga partagé léegi ñi lamb ñëpp def kii <laughs> xam naa ne bu ko yëgee lu muy jëkk def mooy tudd yàlla. ma ngay tudd yàlla fam nekk. ma ngay tudd ñëpp ci gis nga de piège naa leen ñoom ñëpp ci xeetu fiiraange la gis nga xolal fiira ngi te keroog nee nañu fiiruñu non fiirum dem Njaay naa ni fu mu toll mu ngi tudd yàlla gis nga ni ma leen jàppee mais ki nga ma séddee moo tax dama koy rey taculaire laa leen jàpp <laughs> ñoo gën a fiir ñëpp te keroog fii lañ ne fiiruñu jàpp nañ leen bu loolu weesoo nag maa ngi leen di nuy waa àdduna di leen ziar di leen ñaanal jàmm j'espère que ñëpp a ngi ci jàmm j'espère que yéen a ngi toogoon di ñu xaar ndax li ñuy def neex na leen macha allah maa ngi nuyu kilifa aada kilifa diine di nuyu sama famille yëpp di nuyu sama papa sama yaay di nuyu Dior Diop sama mag di nuyu Aïcha sama rakk maa ngi leen di nuyu ak waa Régis ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp di leen wax ngeen comme d'habitude rek dem leen chaîne seen média chaîne YouTube ngeen abonné partage di aimé incha allah di ngeen ci gis affaire doy waar du seen société kese am na yeneen émission yu neex macha allah. donc boo duggul doo xam ni mu neexee donc boo ngeen gisee rek dugg leen ngeen xool ngeen partage aimé incha allah loolu seen nuyoo ngi noonu. jeex na jeeba à chaque fois bu nuyoowee ne aimé leen commenter partager bëgg rek jàpp ci émission bi déglu leen ko te def li mu wax mettiwul du dëgg ma tourné nag sama sama gauche Aïcha. yaa jooju. ma lay ma lay bàyyi rek nga nuyoo. maa ngi lay nuyu. <coughs> ñu ngi lay fay. maa ngi nuyu jeeba. maa ngi lay nuyu Sénégal di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu ñëpp te di leen ne di nuyu waa Régis madame Ndiaye sama wujj bu ñaawul bi maa ngi koy nuyu. <laughs> madame Ndiaye foyewul lool de. man de ndakante xale yu jigéen dañoo war a ragal ñaare man de luñ ñuy daw ci ñaare bëgg naa koo xam lii maa ngi nuyu ñëpp di nuyu complexe Babia moom mi ñu. Ah, abi nga ñëw séq leen def verre. pour dégrader ko rek pour ah. xam nga su dul woon verte bi rose du feeñ. tas yaakaar waaw day frappé. moo fa jaar madame Guèye macha allah gis nañu sañse yi kontaan nañu vraiment ak sa tissu yu arrivage yu bees yi xam naa nag xam naa tissu bu weex bi xam naa suñu may takk dama koy ñëw jënd ndax ñaana ma léegi ni ma ñëw. jënd si tissu ma waaw bi pour marié bi foofu ma ñëw jënd sama macha allah naa ñëpp. incha allah waaw moo Tafa Ndiaye di ñaan seen ma dem takk. loolu moom man maay bañ loolu Aïcha je t'aime beaucoup waaye maay bañ du ma ko nangu bu ngeen gisee ay Aïcha ni mu toogee ni bu ne bërët ki mu nopp sa jëkkër nga daw. mi ngi noonu maram ngay kontaan nañ ci la remercier waat bu baax a baax a baax a baax gis nañu akay bi rek moo gën a neexati ma ne ko akay ba nga fay fekk rek loolu dafa neex te day def euh, day day livrer da ngay woote commandé livreur am yóbbul la ko day def a déplacé à l'extérieur fii sous région bi fépp foo bëgg rek yow yow yow woo ko téléphone rek mu yónnee la modèle yi nga tànn livre am yóbbul la ko. tissu bi rafet na waaye ay jongomaa ko sol nag ay jongomaa ko sol de. ñu def tas yaakaar bi te ñoo ko créé nii nag de def rose vert xam nga day frappé dangeen koy bëgg. mu ngi noonu waa seen société ñoo mel noonu à chaque fois ak fu ñuy génn. waaw ndax xale yi dañoo am dégg. nañoo bëgg na bés bu ñu too heure bu ñu toogee di leen wax dara lu xew ci dëkk bi bëgg ko partage ak yéen nañuy bëgg ngeen di xoolaale gisaale ni ñu mel moo tax ñuy def nii di def ba mu baax ngeen kontaanaale ci mi ngi noonu yàlla na jàmm yàgg. jéeba ñu gis commentaire yi ak ñi retour yi ñu am yëpp ñëpp ne ñu fiiraange bi yeboo ngeen continuer ko li ngeen ci wax doyul ñu leen ñun yéen rek lañuy topp lu ngeen bëgg rek la ñu bëgg moo tax ñu ñëwaat tey continuer waat fiiraange ñëwaat ci fiiraange léegi man fi may commencé te ci fiiraange mooy fiiraange dem na ci ba dangay ngay gis jeeba yaay ak doom nga gis ku fiire doomam ba lambal ko waaw am na ñuy fiire seen doom ba lambal leen kenn du la seet te xam naa gis naa doom bu jigéen kenn newul bul fiire sa doom doom bu jigéen liñ naan doom bu jigéen ak yaayam ay moroom lañ doom bu jigéen da koy teg sa wet di waxtaan ak moom dëpp mu nekk xale mu ñeme la mais soo demee ba sa doom ragal la lu ñëw dala koy ragal a wax doom bu jigéen da ngay am complicité ak moom doom bu góor sax mën nga ko bàyyi ak papaam muy am yu muy wax ak moom muy redressé doomam góor la te teewul yaay ji dañ ci boo def sa wàll yow tamit mais doom bu jigéen da ngay am complicité ak moom di waxtaan ak moom mu xam yaay kan nga xam mooy kan lépp nga wax kook moom ne lépp loo gis ci àdduna bul ma ragal ñëwal nga wax ma ko loo jànkonteel ci mbedd bi ñëwal nga wax ma ko maay sa yaay bul ma nëbb buy gis règle première règle nga wax ko ko teel ko ko wax ne ko lii peut-être boo amee dal amee age bi lii dina la dal bu bu la dalee ñëwal nga waxtaan ceeg man xamal ko sa biir xamal ko sa biti waxtaan ak sa doom laa sa doom du la ragal mais dafa am ñoo xamante ne ci yarin boobu dañ ciy jëlaale seen fitu doom jël fit bi xale bi du la ñemee xool bu déggee sa baat daw góor bu waxee moom sax mu ñaan li daw ba lépp lu muy bëgg def sa da ciy sóor yaayam te xale mën na dem li naa nit ki boo ko toppee ba ci bés miir wis bi day wañ wàññi dalay song xale bi mën na dem a dem ba à un certain moment day dem ba ne sama yaa daal day dof dof sama yoon nekku ci def loo xamante ne du la neex xale bi mën na dem ba budde wala nga fatt ko doo ko may jàmm doo ko may salaam xale bi di stressé fu mu toll doo waxtaan ak moom yóbbu fitam ba bu génnee lu ko ndax day yomb lu ndaw da koy nax bopp bi day vide dara du ci nekk mooy ñi nga xamante ne dañ naan yar naa sama doom fi ma ko war a yare teg ko sama wet teewul ñëw nañ na ma yàlla baal ñëw ëmbal ko day fekk bopp bi day vide dara nekku ci wala mu génn rek bëgg tàngal sa xol sama yaay daal ni may fàttee sama nekk ci ma tàngal xolam génn def na ko su dul noonu fiire sa doom ba di ko fiiree te à chaque fois da gis ñu am seen doom de ñañ koy fiireel xale yañ koy fiireel ñoo ñooy baax ci sa doom da gis nekk ci koñ am ku bëgg sa doom di ànd ak moom nekk xaritam di fa ñëw à chaque fois te yow ëllëg nga jéem leen woo ñoom ñaan ñëpp yedd leen di waxtaan ak ñoom mais takk rek danga naan ko xale bi neexuma bàyyil ma kii bul ànd ak moom mu daal di fekk kan ko bàyyiloo kooku moo baax ci sa doom nga nga kase relation boobu ndax fiir ay day taxawaaloog yaayam di ko téye dal na ñu bari am na ñoo dem nañ ba màgg di ko nettali sama xarit bañ ma doon tere yaayam di ma tere di ma dàq seen kër man la ñu takk céetal ma ma fees dell doomam jooj ma ma doon tere naan man maa yàqu maa yàq doomam doomam jooj lañ ëmbal wala sëyul ba léegi wala fàq na wala dem na loolu lépp ci xeetu fiir la moo tax ma ne jeeba fiire sa doom ba lambal ko wala ba yàqal ko wala ku ñëw seet si ko nga dàq ko xale yi bu ñu amee yenn âge yi soit jàpp 18 ans am na ñoo xam ne ba vingt ans seen seen yaay daleen naan góor dugg ci kër gi kooku bu génnee day toj réew mi. waaw xam nga avant yaay joor fiire mhm. lu ci ëpp fiire seen doom yi ba lambal leen ba téye leen ci kër gi lu ci ëpp paayee ko doon def. am na ci maire yi de. si si am na am na loo gis am na exception mais da ngay gis paa yu njëkk ya ñoom tamit dañ doon fiire seen doom ba nga xam ne baal bi ci koñ bi sax mënuñ koo génn seen yaay leen doon dimbali ba ñu génn ñëwaat te paa bi du ci yëg. koñ ba lañ daan baalee sama yaay sama yaay da lay jël si sama yaay. sama yaay da lay jël si fekk la ci biir baal bi soo toogee ñee la sa yaay ngi ci suuf ma wàccaat ñun fi ñuy duggee. yaay joor sama yaay jël si na. fi ñuy duggee fi ñuy génnee benn la. Liberté 1. laajal euh, euh, sama copine boobu Kiné maa ngi koy nuyu de passage mu ngi ba Paris ak magam astu mu ngi fii xam naa bu ñu seetaanee émission bi ñëw ñu dinañ mën a xam li may wax lan la dañoo doon baal ñu organiser suñu baal ñu yoot ndànk daal di dem sama yaay ne ma bul dem ma ne ko waa ok ma bàyyi ba mu commencé xandoor ma solu ndànk daal di dem. ci ginnaaw suñu ginnaaw kër la ñun daal fi ñuy baalee bay baal nii rek Kiné ne ma waa jeebaa kee may mudur musóor bee <laughs> man ko dama bëgg génn àdduna fi ma taxaw <laughs> ma xam ne rek sama yaay tey la may dëbb ba ma mokk def ma def ma bulet noo xoolal ñëpp daw barki rasulullah xam nga loolu yëpp ci xeetu fiiraange la fiir la ah fiir la parce que baalu baalu kër ci koñ war nga mën a bàyyi nit ki mu dem vite fait sama yaay bu soree du la bàyyi moom bu dee biir koñ bi lay xam ne mu ngi ñëw jël si la lii yaa joon noonu la ma jël see yóbbu ma ma ñibbi waxuma dara de dafa bàyyi ba ci ëllëg sa man xam nga ban problème laa amoon problème mu génn ci koñ ñu naan jéebaala yaayam jee si soirée bi <laughs> sama yaay. mairie fiir ndeysaan te seen fiiraange ñoom am na lu mu am na am na lu mu abutiru seen fiiraange man rëccuwuma ko man li ma sama yaay doon fiiree ak sama papa. di nga gis lu ne mais doo ci dugg. merci waaw dugg naa lu ne ba pare bu njëkk ba fiir boobu da ciy topp ba ci sa ay rakku yaay sa ay ndijaay man. sama yaay daf ma doon fiire sama frère di ma fiire sama tonton ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm le maire Pala Samb ndeysaan sama tonton daf ma doon fiire sama tonton daf ma doon woo néegam ndax man nee naa man maay sët bi nga xamante ne presque maa fa njëkk nekk zone B ci kër gi ci jigéen surtout taaw sama taaw maam taameer yi ay doomam dëkkoon nañ foofu ci biir kër gi mais après dafa tuxu mais man dama doon jàngee Sainte Thérèse di yendu zone B chaque jour bu ngoonee xam nga dangay wàcc midi gont 3 heures. midi bi damay ñëw zone B yendu zone B sama maam foofu sama tonton mi ngi dëkk ci kër gi. mais sama tonton à chaque fois su ma ñëwee noo def mu woo ma man ni su ma ko nuyoo ci néegam fekk ci ginnaaw noo def mu teg ma ma toog baa yaa ngi jàng lul gis nga sa yaay li muy li muy daj ci yow gis nga école bi nu mu chéré Sainte Thérèse war nga jàng retraité war nga jàng xale màgg ba fay ko yooyu la daan dëkkee sama nopp ba pare pare mu bëgg ma ma nekk xale sama bulletin daf ma naan sa bulletin bu ñëwee balaa nga ko yóbbu saa indil ma ko sama bulletin bu ñëwee bu ñu ma ko joxee damay ñëw jox ko ko mu xool ba pare kooku nijaay bu baax la di ma fiire di ma waxtaan sama ay ndijaay parce que sama ndijaay bu ndaw bi moom sa tuddee na ma doom ba dara ndeysaan mi ngi dafa xaw a feebar xaw a yàlla na yàlla may ko tan muy sama ndijaay bu baax bu ma bëgg ndijaay bu tuddee jarbaatam doom ba jarbaat bi sëy moom it mu may fiire di ma wax ay pexe góor góor ni mu lay naxee góor li mu lay. dañ laa bëgg rek. merci man ñooñu ñooñu entouré ma woon nekk sama wet ñooñu ñoo ma dooleeloon ba sama enfant sonnu ma ci. sonn ma ci góor mënuma woon jaar fenn góor dara feesu sama bët loolu yàlla la nee naa raw yàlla la mm. ñoo ñëpp dañ ma doon fiire des fois ma buddewaan naan naan bëgguñu ma mais soo màggee ngay xam ne ñii lu baax lañ la bëggaloon ma leen ciy sant di leen ci gërëm sama nijaay jooj Paara Samb yàlla na xippee aljana firdawsi sonnoon na ci di ma fiire Ousmane Diouf di sama sama mag moom tamit may ma njëkk tuddee ma doom usmaan daf ma doon fiire moom tamit di billaahi di waxtaana mu baax Ousmane bu ma sëyeeg sama borom kër nii joué na ci lu bari joué na ci lu bari billaahi sama sëy bi ak sama borom kër wax na ci baax lu ma gën a poussé pour ma dugg ci sëy moom bokk na ci wax ma ay réalité billaahi di ma wax lu baax ne ma sëyal yaay moytul jooy dangaa gaaw ci jooy billaahi mi Ousmane Diouf ma koy nuyu de passage sama mag ju baax a baax sama complice jeeba li may wax ak moom duma waaw Ousmane ku baax la mu bëgg ma baax sedd moom tamit ñooñu dañuy sama ay frère entouré ma ñoom picc Souleymane Sarr ca Fass moom fépp la dëkk sax borom Delorme Souleymane Sarr borom Delorme picc ndeysaan sama mag yi suñu yaayee bokk mais dama maase woon ak ñoom génération mais dañ may fiire pour ma am copain nii il faut ma laaj leen wala ñu dégg diw dalaa nopp dañuy dem ba ci kooku lijjanti ko pour ma génn kenn ñoom dañuy xool ba ba ba ne ma dégg naa temps ki kii moo lay topp ma ne waa soit ñoo mën a duggal wala génnal bu génn kii ñoom dañuy dem ba ci ku ñu xamante ne dangaa mën a doxaan ci secteur yi ñu dëkkoon dañuy dem ba ci yow ne sama doxaan bi génnee ci yaa joor bilaahi euh, muy lu muy muy loo xamante ne ma koy rafetlu sama mag yooyu maa ngi leen di nuyu sa passage ñooñu ñooñu buñ la toppatee bëgg la mm-hmm. sa yaay lañ njëkk bëgg ba pare merci door la cee teg ndax nit bu la bëggee sa yaay la bëgg mbaas mais loolu nag moo amatul yow tamit boo nekkee xale nga nag nangu tamit mm-hmm. damaa nangu mais loolu moo bëreetul léegi ban ban ban lijaay bu ndaw moo ñëw sa doomu sœur naan yaa ngi koy fiire di ko lijjanti. xam nga léegi parent yi dañu démissionné. merci meluñ ni comme avant nga xam ne dañ lay topp di la du sa yaay kese du sa papa kese. membre famille bi yëpp la say tonton say tànt ak ñëpp. ba ci ñi nga xam ne da gis sax voisin bi nga xam ne boo génnee sax wala dara mu xool la daal di ne sa yaay wala kii génnoon na heure bi wala. fu ñu la rombee fenn sax kii soo màggee ngay xam ne fiir yooyu man bëgg naa ko. fiir yooyu amoon bëgg naa ko. fiire ba yow entourage quartier bi yëpp dañuy xam sa yaay xam ne da ngaa bokk ci famille bu baax fiire la soo màggee nga koy xam mais léegi kenn sañootul fiire sa xale yi sañoo ko sax léegi yaay yi fiireetuñu doom parce que yow yaa ngi yaakaar sa doom lu mu wàcc lu mu ñëw indil la ci dañ bo buñ ko fiiree di ko surveiller sa ñu ne koo teg bët lu mu def mu ngi koy xool waaw lu mu merci tey dañuy ñëw ci xaw naa ci beneen sens bi mhm. beneen sens fiiraange bi nga xamante ni léegi kenn sañatul fiire sa doom amoo fit bi sax xale yi lu leen neex la ñuy def. Eh, da ngay bokk ni ndey ak baay sax da ngay bokk góor ndey ak baay amatul doo fiire sa doom. moom laa lay wax moom laa man sama man waaw ñoo ma fiire ba ma ba ba ma rëcc du ma ne rëcc sax ndax kenn rëccul. merci du ma ne rëcc la merci du ma ne rëcc la man dem naa ba man man am na am na ku ma ku ma doon ku ma doon topp xoola damaa dem ba ci Ousmane boole ko. pour mu bala ma ne ko xam ko may topp naa daf ma nob ak yooyu noonu ma dem ba ci Ousmane Diouf boole kalaame ko. ma dem àq ji kooku noonu la ma bàyyi su ma wàccaan mu topp ma ma dem boole ko parce que loolu laa gisoon ñuy def ci man di ma fiire xam ne damaa war am lu baax dama war a am jëkkër dama war am lu baax ñu coiffé ma ñoom ñooñ ñëpp ba ci waa koñ bi ñu doon àndal ñëpp ñoom Ali wan ma waa zone bi ndeysaan ñoom Maurice ñoom ñëpp ñoo bokkoon Thierno Bambara. Eh, euh, tey tamit ci ci couple yi fiirange uh-huh. boobu tamit c'est très important aussi war nañ ci wax bu baax ndax soo fàttaliku fi couple yi couple diggante jëkkër ak jabar wala copain copine bi nga xam ne dañuy projeté wu pour sëy loolu yëpp tamit war nañ ci wax ndax booy fàttaliku yaa de cela ay quatre ans cinq sax cinquante six ans mooy femme boobu noonu nga xam ne jëkkëram euh, papam sëriñ la woon ndeysaan ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal euh, bu te mu soode woon jëkkër ji loolu yëpp ci fiiraange foog ne foog ne jëkkër ji dafay doxaan muy xool téléphone di def yëpp ba naka ngay fiiree ba sa xol jóg ba nga jël diwlin wala ndox ba soodee sa propre jëkkër. jëkkër jee ko jëndal oto ne ko takkal naa la wujj. non kooku Gàmbi la woon takkal naa. non non bii H&M bi defe naa noonu la de. déedéet bu HLM bi non daf ko doon soupçonné day jël téléphone am bu bu nelawee mu jël téléphone am di yuurlu di xool man xam nga lan yaay joor lan la ñu war a njëkk arrêté Aïcha. vérifier sa téléphone jëkkër. vérifier sa téléphone jëkkër te gis nga keroog maa ngi la koy wax fii gis nga nit. gaañoo ma ak ku mu munti doon am nga benn espace bi nga xamante ne yow yaa ko moom. sa territoire la du doom du papa du yaay du jëkkër kenn waru la fa fekk loolu pour bañ ka nga nga nga def comme genre surmonné nga fees dell ba yow mënatoo juboo kenn parce que sa espace boobu tu en as besoin góor sax da koy soxla xam nga des fois sa jëkkër des fois yow sa jëkkër sax toog jàpp ñàmburam nga foog ne dafa dikkaleeg fekk boppam la soxla may ko jàmm sama genre gi nag fa la ñuy nekk dara fa ratta fatak wax <laughs> fekk yow yaa ngi bëgg soxla sa bopp. loolu ñoo gis nga espace boobu boo duggee ci bulle boobu fekk danga ko soxla parce que tu es trop chargé bari nga ay problème problème yëpp ñëwandoo di la mbéj gauche droite donc da ngay soxla isolé wu tuuti pour mën a réfléchir wala pour mën a nekk ci wala triste nga amoo envie dara léegi nag ci biir loolu dafa am femmes yu bëri yi nga xam ne bu loolu amee rek dañuy defe ne seen jëkkër day doxaan. day doxaan waaw. ci saa yi commencé nañu li ma doon wax keroog fii madame Ndiaye dañuy créer. man sama jëkkër laay kii heure bii am na fu mu nekk am na ku mu nekkal mbaa ay Aïcha mbaa yaay joor mu lay dofloo dofloo bi nga xamante ne ngay magum jëmm di ànd ak sa xel 100 pour cent dërëm wokku la dara jotu la nga nangu fiiraa nga dem ba toll fi nga xam ne di la manipuler di la defloo li nga xam ne femme boobu noonu tey jii nii exemple pour toute femme nga jël sa jëkkër fiire ko ba sotti ko acide ah ndax fiir tey jii nii yow loo ci jëlee. say doom yàq nga seen àdduna xañ nga leen papa xaj nga leen yaay ndax kooku à vie lay toog foofu léegi xale yi dañuy tol tolaani fu ne ñu ma lu ñu leen mënti téye téye téye affection paternelle ak maternelle nit munu koo jox nit ak loo ko bëgg bëgg bëgg moo tax ñu naan ndey yàlla li mu def xam na ko defar famille place su kenn mënu koo jël place yaay kenn mënu koo jël place su papa kenn mënu koo jël donc jigéen ñi bêtises yu bëri yi ñuy def bêtises yu bëri fiiraange jaru ko góor tollatuñu foo koy fiiree noonu ba mu lay jaral ngay yàq sa àdduna après sa doom yi ñooy subir conséquence yi tey jii xale yi bu ñu amul encadrement bu baax ñu ngi ci mbedd yi di def lu la neex muy góor muy jigéen yow góor moo la jaral nga soode ko noonu ba yàq sa avenir doom yow yaa ngi ci kaso bi prison bi may nuyu mu metti lool nga xamante ne fa ah, nga xool sa wujju xool ko ba séppali ko jël acide wala jël dara tuur ko mais soom bi bu tàng nga tuur ko ko léegi yow yow da ngay dem ci kaso bi sa wujj bi toog ci biir kër gi ak sa jëkkër même bu fekkee wér na sax sa jëkkër bu dee gore na du ko mën a fase ko mën a ndaxte dina xam ne kii dafa sëy ba ñu def ko nii mu téye ko yow yaa ngi ca sa kaso bi sa doomi di toltolaan sa wujj boobu amul xol defanteeg yow def ko ci say doom nga perte kañ la ñuy yeewu kañ la ñuy yeewu am na ñuy manigancé Aïcha da ngay gis ñaari wujj yu nekk ci kër di sëy yow ngay aawa jiitu fa daj fa lu ne sonn ak sa jëkkër muñal sa jëkkër ñaareel ba ñëw bëgg toog sa diggu bopp bi bëgg nee na mooy fiir li ma naan à chaque fois ñaareel yee fiir. Ah, loolu laa leen di wax keroog ñaareel yi dañoo mën a fiir. bari histoire li ma Adja Ndaw daan wax ñaareel bi ñooy fiir ba pare kenn du wax waaye moom nag moom fiirul woon nag moom. <laughs> Adja Ndaw waaw moom fiirul woon. waaw ndax moom jékki rek la toogee woon ca biir këram saan di di ñaanal jëkkëram jooju génn àdduna sàmba yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana waaw Adja Ndaw boo nee nii rek mu bokk saag bi ne la maa ay. Eh, yaa joor jigéen bu fiirul amul si àdduna dafa am lu koy déclenché am am am li nga xam ne moo koy yëkkati mais ñëpp fiir tout le monde. jëkkër ñëpp fii dafa am lu koy yee dafa am am ñi nga xam ne mooy li ma lay wax ñi biddante ñi wérul ñi waaw mooy ñi wérul daa moom biddantiwul woon moom waa nee naa ko keroog daa amoo ci anecdote mu ne ma déedéet man daal li ma gis ak li ma wan <laughs> fiirul nee na fiirul waa man daal heure bu daal ma bokk saak bi ma aye maa ay ji daal moom booyoon na suñu nopp yi da ngay ree bay bëgg a dee ndeysaan yàlla na ko yàlla mayaat keneen ku baax waaye ku gën ci ñoom yaay jumeaux yi sama doom yooyu ndeysaan xuri xuri Sarr mama Sarr ak Mouhamed Sarr sama ay doom ma bëgg leen ndeysaan namm naa leen waaw xam naa naa jël si waat temps yi ndax namm naa leen foog ñu ñëwaat waa xumbalaat kër gi tuuti sama doom yooyu ndeysaan Adja Ndaw nuyu naa la bu baax a baax a baax moom nee na féerul aj yow Aïcha li ma la doon wax léegi muy ñaari wujj yoo xamante kii mujjee ñëw ñaareel ba moo tax ma dugg ci ñaareel ci ajaa laalaal ko parce que fiirul mais ñaareel bu fiir mooy ñëw bëgg la déjjati sa place di xola di def ay coup baa di la monteel ay coup yàlla bu ñaareel ba ñëw jubook njëkke ya waaw xam na njëkke yoo xamante ñoom ki bees lañ xam waaw ki bees boo ñëwee parce que boo ñëwee xamaguñ sa jikkoo xamaguñ noo mel soo ñëwee commencé teraanga yi leen di defal xeeb nañ awa ah, ba nga xamante ne ba dara du dara la nekkoon ci kër ga sonn fa muñ fa am fa njaboot lu mu am doolee ko dépense lu mu am def ko ci biir kër gi te njëkk yéen nag fa seen kër papa seen kër yaay yéen a ko moom mais moom mooy daw daw gos daw droite ñëw dolli dépense kooku amul lu leen terale léegi ñaareel bi ñëw nga xam ne mi ngi doog a ñëw moom virus bi duggagu ko moom lañ aj ajal ca kaw mooy ñëw kompaloog njëkk ya dina def ay coups yoo xamante ne yow doo ko attan ba ci mën nañ kompaloo kompaloo xam ne ba situation bi yow ñu nañ naan yàlla xamul ko ni ku ñu xamul ko tooñ ku fayu lañ xam di jéem a def loo xamante ne après affaire beneen tournir lay jaar ba yow coow li say sa kaw lay dal yow aawa bi fekk yow ñaareel bee manigancé yépp yow soit soi-disant ngay fay yu lay mën a nekk soit ngay bëgg a fayu wala wala wala nga buddeeg yooyu coow la mujj këppaat sa kaw ba ngeen mujjee tribinal waaye xam nga yàlla day àtte ba da ngay gis ay seytaane yu la ne yóbbu ko tribunal yóbbu ko police nga dem police wut chef cas fële wut chef cas médical hôpital dem police wut sa lépp plainte ñu gàddu yóbbu sa aawa yóbbu police waaye yàlla day àtte aawa ba la mu fa muñ ak lu dul dëgg suñu borom du ko du ko du ko du ko validé ñu yóbbu leen tribunal fa la yàlla di ñëwee ak ay mbiram nag àtte ñu bàyyi aw ba mu dem te du tee sam aawa ba dina jot a dugg moom mais soit dina génn après jëkkër ja mooy mal placé soit sëy ba day tas yaay gi sa yaay ne la fase ko nga fase ko mu dem nga des ak sa ñaareel te lépp ci fiiraange la te pourtant ñaareel ba ñëw nee na noonu moom mooy fiir yow aaw bi nga xamante ne moom moom jëkkëram xajal la ci moom fiirul yow ñaareel bi ñëw bees yaw yaay fiir pour lan. waaw yaa joor bi balaa muy dugg day fekk li jëtti ne numéro aaw bi moom mooy woote mooy saaga ndey. balaa ñu koy takk ñu koy takk moom ñaareel bi mooy woo aaw bi moo koy xañ jàmm. bañ takk ko waaw bañ takk ko te xale jigéen léegi dañoo xewle dara. jëkkëru jàmbur la ñuy noot. di la ne sa jëkkër a ngi nii sama wet yàlla bu ñu not sama <laughs> léegi nag boo fiiree yow boo fiiree ay dégâts ngay def boo fiiree ay dégâts ngay def. sinap dafa am flamme dañuy nekk ak sa jëkkër di la flamme flamme benn yoon nga koy seetaan mu supprimé wu dootu nekkat sa téléphone. xale jigéen léegi noonu la ñuy def léegi yow su la soo defee loolu ba ñu takk la yow nga dem nga ne yow ki nga fekk ngay déjjati waaw pare saa nga dem fekk fa guy nag. waaw guy de doog nga ah, fekk fa guy koo xamante ne waaw dafa liggéey nag mënoo koo déjjati mu jur ay doom yu mag mhm. tey sa njëkkee yi di la jàppale ay doomam bu ñu ko gisee après seen njëkk yi dañuy dem di xeexali ji mooy ñi nga xam dañuy ne dañuy dem xeexal seen seen bàjjani fekk lu ñuy def seen yaay la ñu mënta supporter. léegi nag yow soo nekkee koo xam te ne doo wax nga jël affaire boobu def ko sa xol. yow nga ne da nga fiir yow nga fekk si yow fiire wuñ la yow yow nga yow yaay fiire yow. waaw ñooy fiir. ñoom ñooy fiire. ah ndeysaan man gis naa ci ku ma ne. Hmm, attention bu leen bu leen insister de ña aawo yi dañoo fiir tamit. yow bàyyi ma aawo yi fiir nañ waaye aawo yi bu neexee fiir. Aïcha yu bëri tamit dañuy def affaire mankanku. waa loolu am na. Ah, aawo laa waaye loolu am na mais loo gis am na exception. loolu. aawo bu gis naa aawo boo xamante ne fiir da ko tax nee na ji du doxaan jëkkër ji du takk ñaareel da ko jaral. xale yu jigéen nañu bàyyi noot noot baaxul day rey góor parce que kii dafa jël noot defar nootam jëkkër ji lekk naanul noot bi noot bu fanaanee góor waru ko naan alxuraan bu fanaanee góor waru ko naan après mu jox ko après mu jox ko jëkkër ji mu naan ko après mu def ko feebar ay ay ati at. xaru biir biir xale bu góor bu feebar ci loolu mais après ba ñu demee ba xool feebar bi dafa dem jiiñ keneen dafa ne beneen keneen moo ko ki kon tey ji nga ne sama wujju percogo moo ko liggéey te yow leer na la soo tëddee nelaw xam nga noot gi nga jox sa jëkkër moo moo moo moo sa jëkkër góor ñu bëree ngi dee ci loolu am naa sama cousin boo xamante ne loolu tax na mu fase jabar ji noot bi dem ba ma bëggoon yàq butitam mu fase jabar ji parce que après jabar dafa dafa dem ba sonn waa mu avoué ko. métitu biir la lay jox. dañuy dem hôpital duñu gis dara. parce que noot bi la. dara noot bi ndax noot bi moo ko bëggoon rey. loolu xam nga xam nga dafa benn détail bu ñuy fàtte mooy xam lan gis nga fiire. dafa am lu mu àndal mooy suñ mbiru suñu borom mu ngi ci mooy xam nga lan gis nga nit sa jëkkër yaay joor bu yàlla góor dafa am góor yu bari yi nga xamante ne yàlla dafa bind seen jéeb yi dañu war a am ñaari jabar wala ñett wala ñeent wala benn la ñuy deewee da ngay gis góor bi nga xam ne ginaar bu rombee sol ay coquette mu xool ndax nit la topp ci te pour temps du mës a takk ñaareel parce que ñaareel fii la nga gis ki nga xam ne doxew ko waxew waxew ko mooy takk xam naa ci suuf pourtant mun na nekk du doon doxaan mais dafa ñëw ci moom danga koy accepté nga nangu ko man xam nga lan laa d'accordul képp kuy dox ci àdduna da ngay fiir mais am na ñoo xam ne ku ñu leen tegal kaame ne seen jëkkër yi doxaañ te seen jëkkër yi daa ko doxaañ te xolo bu ñu duggee seen kër yi wane wuñ ko doxee wuñ ko te ñoo daa li ñu war a yeewoo Aïcha li ñu war a yeewoo mooy xam nga lan man fi ma nekk di waxee mooy xam nga lan fiiraange ñu jaral yenn yi parce que yàq na àdduna xale jigéen yu bëri ba mu répercuté ci seeni doom te jaru ko te góor ñi jaruñu ko fan nga mësee gis góor bu soodee moroom góoram ndax jigéen fan nga gisee góor bu dem naan dafay def nii wala dafay def ne moroomu góoram ndax jigéen donc ñun kañ la ñuy yeewu. loolu par sax am na di nga gis góor tamit bu dem jam moroomu góoram ndax sama jaba dala romb parce que tax tey jii am na benn gel boo xam te ne démb démb ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi tey démb ñu ngi koy live xale bu jigéen bi Gàmbi la nekk. nekkoon na góor ki lu yàgg ñuy génn mu dem ba xam ku góor ki da ko doon fen lu mu ko doon wax du dëgg affaire yooyu mu góor ki. ba am jëkkër ba desul pour moo jëkkër ji ànd ñëw Sénégal ndaxante waa ji dafa bàyyi woon ak lépp ci sooy jéggi si Gàmbi bi mu ñu ne waa bag bi ñu jox ñu laaj ko jigéen ci carte mu joxe ko ñu ne ko yow da amoon problème ak xawma kan problème bi def ba ñëw ba Sénégal ba gel baa ngi ni démb lañ ko jugé toj ko campagnat nga ni ci ko góor koo xam da nga doon génn moom di ne na ma fay yu ma ko defaroon yëpp lu ma fay lu ma ko kii woon yëpp te kooku mu ngi ci bu mu sëyam di sëy ku góor ko ko gën a loolu am na am na ci ba dee ba am na ci ba dangay sa jëkk am sa nga am ñaari copain seex li nga naan góor ñi lu ñu soodewaate waaye góor ñi ngi def xamante ne dangay am sa copain keneen takk la wala nga am ak sa benn copain yàgg xëy rek sa benn cousin jóge fële yow mhm. des fois ñu ne sëyu mbokk ah. may la sa cousin par force kee nga doon génnal dem ci sëriñ liggéey la waaw mais xam nga xam nga liggéey yaay joor xam nga liggéey xam nga moo tane vidéo yi ngeen àndoon xam nga parents am jigéen ñoo xam te moom wax dëgg yàlla man dama ne loolu manqué wéruñu waaw loolu mën nañuy tas yàq Aïcha xam nga liggéey moo xam nga lu tax liggéey bi moo tane dafa am ñi nga non fiir la fiir la mais je veux xam nga soode amul ku yaramam di ki nga xamante ne mu taxaw nii nekk mbindeef doo ko sotti ndox bu tàng te du lakk mhm. mais xam nga liggéey am na ñi nga xam ne loo leen def du leen tey am na yu jàpp nag. dëgg non yaay joor loo gis am na exception mais dafa am liggéey yi nga xam dama bëgg ne am na ñi nga xam ne mun nga leen liggéey ba sonn pour takk leen. ñu see keneen parce que ah, mënuloo leen dara mais dama la bëgg ne ñun jigéen ñi man fi may waxee mooy boo baxalee ndox ba mu tàng boo ko ne yurub nit ki amul day jàpp day jàpp day jàpp kay ma ne la bonk ñun nañu génn ci loolu xam nga li ma la bëgg a wax na ñu génn ci loolu ba mu set parce que du si ñun rek lay yem loolu way bu dul fay la day topp ba ci say sëtaati sët day topp say doom nga am utal leen way rey seen baay yàq seen àdduna utal leen way utal utal way ci sa biir famille fi ñuy fi ñuy sëy a nekk ak seen i bàjje nekk ak seen lépp xew dana am wala ñu koy takk wala dara dana am même buñ ko gaaruwaale xam nga yenn saa nit mun na wax benn wax bi nga xam ne du yow lay gaaruwaale mais yow da koo dund te yaa ko def ci saa si yow tu te sens visé te dalay metti mais pourtant Aïcha mi waxul ak yow mais li nga def ci loolu lañ tombé faa ñu wax ci moo tax def lu baax baax. Mhm. ñoom laa wax am na ci ba yow da ngay sëy ak sa jëkkër sëy du am ñoo xamante ne sëy buñ dugg mu tas. Mhm. fekk copain bu ñu amoon moo leen koy def nii. sëy bu mu am mu tas sëy ay ñaari weer lay am ñett ay quatre fois fekk sa benn farala ko def ndax fiir bëggoon laa takk takku la góor ñaa ngi koy def fii du fi jeex am ñoo xam ne divorcé nañ mënatuñ sëyaat am na xam mëntuñ sëyaat lekk kon kii ñu ko tëjee du lekk xam nga tax du lekk fii jigéen bu fi lekk góor góor la neex mais kii da ko fekk ak teraanga ñay dof a ngi dof ba léegi de am na ñooy lekk seen xaalis dam ñoo baal ci kàddu bi mbaraan leen ba sa xol sedd lekk seen xaalis ba mu set te mu leer na ne yow kii noboo ko attiré woo ko attiré wu la noboo ko attiré woo ko deful dara nga lekk xaalisam ba mu set moom muy projeté sëy moo tax muy investir si yow nga ba ko dem ànd ak keneen. mais kooku da lay liggéey te bu la liggéey yàllaa koy jàppal sax ndax yaa ko tooñ. da jàpp yaa ko tooñ. yaa ko tooñ lekk alalam. waaw dama ne loolu góor ñu dof ñi la. góor ñoo xam te ne aw ñu xel wala ñoo xam te ne góor ñoo xam dañu leen tëj a tëj a tëj a tëj nu ñuy fiiree jigéen noonu la ñuy fiiree góor am na góor ñoo xam dañu leen fiiree fiiree fiiree metti xama ci wax di wax ji yëpp mooy lépp sans d'intérêt bi yëpp góor la fiire bi yëpp centre bi góor la jigéen ñi talatuñu dara dara dara dara dara billaahi jàpp seen ah, àdduna yëpp ne góor jëkkër yàllaa ko santaane jëkkër mm-hmm. pour ñu sëy jaamu yàlla la mm-hmm. waaye sëyal mu doon jaamu yàlla yàlla may la ci njaboot mm-hmm. lu ci ñëw bañ nañ ko ba suñ boroom ñu ko sàkk nee nañ neexul muñ leen buñ demee ba naan muñ leen muñal lu neex amu fa bu neexee yaa ko neexal kon jéem ko neexal wut sa benn benn benn benn environnement boo xam ne sa biir kër lay nekk nga neexal ko sëy bu neexee yaa ko neexalal sa bopp mais kuy xaar góor neexalal la ko billaay du gëj a dina gëj a neex buy neexee du yàgg yaa koy neexal mu dem ba boobu nga koy neexalee yow mu fekk ci la ci parce que góor assier la rek day jàpp li nga indi ci kër gi ci loolu lay fekk mais yow boo jëlee fiir a fiir a fiir ba yow foo ne sa na yëpp boo duggee ci internet bi centre d'intérêt bi yëpp góor la sama jëkkër eh, nangu nañ sama réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi sama xarit sama lii sama goro sama rek goro lii loolu rek góor rek góor maa ngi ci di sëy ñu ngi ma sonal mënumaa dem ndax sama lii lépp boo ko xoolee tënk góor la muy loo xamante ni yàqal na jigéen ñu bari yow nga topp ci benn mbir rek di ci daw. looloo looloo ma metti looloo ma metti nag. ba pare balaa ngay gën a mën a fiir yow njaboot nga ba pare nga ne yow da ngay fiire. waaw xam nga Aïcha tamit Aïcha tamit même boo même boo njabootee sa jëkkër la même boo njabootee c'est ton mari. nga Olof Njaay ne sëy boo ci amee doom jam nañ la. bu màggee nga koketu xam nga loolu mooy lan. xam loolu du waxi xol. non non parce que ak dama ak xam lu ci mun ci nekk ji ngeen sëy dafa am benn base boobu bu fa bu fa tolloo. sëyatoo ndax sa jëkkër dangay ngay sëy ngir say doom. waaw loolu dëgg la. moo ko nangu sama jëkkër day liggéey wala sama jëkkër guddi gi day dem toog ci moromam yi di waxtaan du ma la karkaree soo ñëw ñu xulloo heure bi nga dugg si ba fajar samay doom di ko gis duma ko nangu. benn góor jaraluma ko ndax loolu day loolu day loolu day sonal day sonal sa doom yi. day sonal sa doom xale yi dañ koy gis da ngay def stabiliser xale yi da ngay def stabiliser xale yi. mënoo ko tere doxaan parce que tey jii góor gu yor biroom nee la maa ngi dem bureau xamoo ndax ma ngi dugg ca bureau ba xale yu góor xale jigéen ñi libre nañu heure bu leen góor woo mun nañu Aïcha soxlawul sax bureau da ngay gis sa jëkkër toog ak yow nii ma ngay message gel bi lu neex doo ko yëg <laughs> wala nga ne ci waañ bi xoolal di jaabante fekk moom ma nga ca message ba waa ji ni la toogee yar téléphone bi jabar ji wane ginnaaw moom pour moom jabar ji fee lay xool ne ko jabar ji moom lay xool gërëfaay bi la tourné nii <laughs> xoola nii la def mais kanamam nee la nekk jëkkër ji moo xool xool jéeg-jéeg yëkkati gërëfaam bi gis karamu kii bi nga a xam ne fiir dafa lëmbe réew mi ndekete karamu jabar ji ci côté am la nekk mais gërëfaam bi la wàcce ba pare wan ko ginnaaw mais karam gi ngi fee di ko xool pour xool code beeg xool ñi muy yónnee am na ñoo xam ne da ngay teg di woo wax téléphone nekk sa téléphone ak jigéen ñoo xam ne seetu la ñuy teg waaw seetu seetu teg di xool ñëw ci ñoom waaw boobu boobu boobu boobu boobu douleur boobu technique technique technique bu garaaw a ngi <laughs> am sa jëkkër mu yor téléphone nga woowaa orange filtré sa sa téléphone jëkkër sa jëkkër message bu mu jot nga jot ko appel bu mu jot nga jot ko xanaa ko gën a mën a ray boppam nga jot loo xamante ne yàlla man nag man du question dama fi nekkal góor yi du ma féministe tamit ba mu ëpp man ci digg rek laay taxaw yàlla xam na ko te noonu laa mës. da ngay tëddee jaaxaanaay célibataire bu metti nga nekkee. no du du loolu ce n'est même baal naa la gis naa xeer yi naa la yenn table bi léegi yow <laughs> non non du du du question euh, célibataire wala dara mais gis nga euh, Aïcha. dafa am ay jigéen nu ñu fiiree dafa am ay góor yi nga xam ne ñu ngi mbugal seen jabar yi ñu ngi yàq seen àdduna jabar yi ci biir kër gi yow lan mooy lan mooy lan mooy nit sa jabar génn dem ba ñëw nga ne ko summil sa sa sa tubéy ma xool summil sa soutien ma xool kaay ma xencu la gis nga waaw gis nga nit danga koy am confiance ci moom nga mën a nekk ak moom soo amul confiance ci moom yow mii amul confiance yaa gën a dee ñëpp yaa njëkk sonn parce que pas tranquille tu n'es pas stable tu n'es pas en paix donc yow tamit da nga koy transférer transférer sa jëkkër mi nga xamante ne moom it nga koy mbugal mu doon amour poison di nga fiire sa jëkkër fekk amul gel sax amul dara il est un peu distant parce que y trop de au bureau à la maison ak yooyu mu distant nga foog ne ba nga xamante ne da ngay dem ba yow sax yaa koy pousser ci doxaan. doxaan waaw parce que yaa koy yaa koy mayu jàmm. yow yaa koy pousser si doxaan gel bi ko doon sonal xale bi bu melee ni Aïcha féroce macha allah too ko defati. perte nga dootoo ko defati ndax Aïcha rek dootoo ko defati barki yàlla Aïcha mu am ci loo xamante ni nit ñi ngi koy jooy tam ba léegi pratiquement kër goo <laughs> dugg surtout jeune couple yi amatul jànq koo wax mooy la mën ak jànq bindatuma ko wala ñii naan la jànq bu ñaaw laay bind duma bind jànq bu jekk duma ma bind jànqu xale du ma bind jànq buy sañse jigéen ñi ragal koo wax mu ne la mu day nangu sama jëkkër jànq yi di ko di ko di ko mettitlu man am na ko ma woo bërki démba rek bi émission bi génnee ba di ma ko wax dama mhm. te moom daa jugoon rek pour liggéey mais ba mu solee tubéy te tubéy la mën a sol sol jiin wàcc patron bi gis ko ñaari yoon da koo fay la mu fa liggéey nekkoon ko na arrêté moo xam ne kii da koy fiir ak jëkkëram mhm. am na ci beneen sens bi tamit am na ñoo xam ne dañoo ñëw pour liggéey charmé ñu sa jëkkër charmé waa nañ ko liggéey ñibbi la ñuy def tàmm nañ solo yooyu ñuy solo yaay joor jànk bu toog loolu ci jëkkër ji la am ci ñoo xamante ni nag dañuy ñëw carrément pour sa jëkkër dañuy ñëw am na si jànk yoo xam dañuy ñëw pour liggéey am ñoo xam dañuy ñëw xoola liggéey sa jëkkër am na man liir naa ko anu waaw waaw liggéey sa jëkkër xool sa jëkkër situation bi ni mel noonu nim lay teralee ci biir kër gi lu mu am may la yàlla bu jëkkër joo xamante ne jànq bi day toog mu ñëw gàddu euh, kiyam kartam na la demal demal demal retiré defal sa sa shopping defalu la neex jëndal la oto dangay dem ba sa jànq da lay teg bët bu demee dëkk ba ci yow lay jëkk xëy mm-hmm. liggéey la tàqala ak sa jëkkër ngeen xuloo sëy ba tas man gis naa ci am naa ci koo xamante ni maire ba ko doon jaay jën moo ko liggéey ba tas sëyam jël doom ja doom ja mooy sëy nii ci kër ga allahu akbar doom jaay fay na nopp dalootina waaw doom jaay sëy këram maire ba ko doon jaay jën moo gis situation ba mu nekkee ca biir këram ak na na na na na mu ko jëkkëram joxee bopp di ko taxaw di ko dimbali nopp ko ndax am na góor yu nopp seen jabar mère ba da koo liggéey indi doomam doomam la waa ji takk moo fay sëy waaye ko du xalaat àllaaxira rek lu la neex defal billaahi lu jigéen ñu bu lu ci ëpp nag jigéen ñee koy teg seen waaw foofu sax day am parce que da yàlla da koo bind day fay fii mais fële terminus ba fële la waa xamante ji lu tax ma wax loolu loolu yaajoon par exemple da am sa jëkkër soo amee sa jëkkër su wàccee elee yow nga jug taajal ko defal ko yëpp lépp mbindaam bi la. am na ah, am na jigéen ñoo xamante ne am na góor ñoo xamante ne fer la ñuy bañ. xale yee ko bindatu dafa ah, góor yu faible. dafa am góor yu faible. dañuy dem ba charmer sa jëkkër ci nuñ lay taajalee nuñ lay déjlee nu ngay déggee kas-kas gi jànk yi dañuy taxaw ci waañ bi sa jabar gisu ñu pour nga ñëw di naxa saari dafa bouger gaz dafa lii. am na góor yu manqué. am ñu ngay nangu ñu lay def jëkkër xoolal jëkk sa jëkkër mu ci biir kër gi di làng sa sa jànk te yëgoo ko xam nga loolu xale loolu femme bi femme bi bu fiiree am na si droit am na ci droit am na ci droit mais xam nga xam nga fiiraange yu extrême yi ba lay defloo ay bêtises yooyu yooyu nag yooyu moom war nañ cee wax yooyu metti metti léegi dañuy wàcc mu metti lool xale yi jaar marché ndugg yegg futteeku ba set gérer kër gi xale yi dañoo takku ba dëgër jël benn jànki cher na metti na dañuy ah. boole loolu lépp ak bañ ku nangu seen jëkkër ñu daal gérer lépp li jënti ko appartement yi metteetul appartement yi rëyul togg bi mettiwul mais bu njëkk bu njëkk ba loolu amul woon ñu jànk ñun suñu suñu ay jànk am na suñu jànk boo xam ne moo boot suñu caat bi liggéey na suñu kër xanaa vingt ans presque loolu bareetul ci kër maa ngi nuyu mère Yaas au ah. passage Yacine Ndiaye suñu yaay ju baax vingt 89 la ñëw liggéey si at laa am ci suñu biir kër suñu biir famille ba tey jii nii. quatre vingt 89 la ñëw. Yacine Ndiaye ku baax. Mariam ñun suñu jànk ñun tuddee na sam papa doom. barki yàlla. sam papa doom rejet may signalé de est ce que du ngeen ñu may tuuti. <laughs> Dabso est doo ñu dolli benn cinq minutes. <laughs> ñu jël beneen cinq minutes. jeex na may nañu ko mi ngi noonu. mu ngi nii dara méttiwul. loo gis waxtaan la. jëlee fa jaar du moom de boo demee. tey jii dafa am ñoo xam te ne dañ doon am dañ doon ut jànk suñu ut jànk ndene lu tax jànq jànk kat parce que dañ doon ne làkkat yi ñoom taluñu dara seen liggéey fëtti fëtti bombale seen kër gi mais léegi làkkat bu ñu waddee seen sër munoo leen baraan loo woddu sëram da nga koy ne géet duggal nga ut per nga ut kii sëru rabal woddu ndax xale yi ñoo jongo ma xale yi lañuy parce que am na jànq yoo xamante ne coono àdduna mooy tax ñu liggéey dañuy jekk naturellement mën a solu mën a sañse mais buñ la nee kër gii soixante-dix mille mu fay la ay da ngay dem liggéey fekk mën nga solu sa yére yi nga am moom ngay sol moom nga dem soo yeggee boo ci gisee boo ci dajee ku ci mel ni ci ci eh, nu tuddati sama xarit ba fiir bay fiir bay bëgg a dee nu mu tuddati faat naa tur ba sax du la jël dala naan carrément xalaatu ko sax ci xool bi waxaale bi noonu mu lay xool noonu rek dala naan baax na te fekk yow coono àdduna moo tax nga ñëw wax nañ la salaire bi wax nañ la salaire bi dangay dem liggéey mais bu problème problème patron ngay am problème patron ngay am. waaw ku ci mel ni jogob tey jii tey jii jogob du jël jànk xam nga jogob du jël jànk wala jogob ci at bi mën na changer dix jànk. sama rakk ji waaw moom it dafa fiir. dafa fiir jogob ndaw jogob ndaw ma nga ma nga ca faas ñu ngi noonu dafa fiir naturellement rek dafa nopp jëkkëram rek bàyyi jàmbur sama rakk ji dafa nopp jëkkëram rek njaay moomu mi ngi noonu jago yaayee fiir bu mu déborder rek waaw bu mu de rek fiiral jëkkëru xale nga yor wante jëkkëru xale tamit par exemple da nga koy may liberté tuuti may na ko liberté bàyyi non da ko fiiral torop da koy da ko kii daal nii la ko def waddu sër yi ñu doon waddu sër looloo tax xam nga jigéen bu waddu sër am forme sër ba lu mu forox forox mu takk au languette cusine fàng góor bu fekkee góor la bi nga xamante ne dëgg la ñoom nga xam ne seen xel yi ndeysaan day doxantoog ñoom man je bi muy sol sax ba sol t-shirt tam ba takk tien moo gën a yiw ndax xam nga sa jëkkër li nga xamante ne day yëngal nit ci biir néeg saa dépend nag ci sër bi nu mu met ça dépend ci góor ñi rek. sol ko saa xam nga xam nga loolu laa la doon wax sànq. ça dépend ci góor ñi. xam nga loolu laa la doon wax sànq ça dépend ci góor ñi boo gisee ki nga xamante ne day xool jànk ak lu mu jekk jekk jekk mu ragal koo jël xam na ni jëkkër jëkkëram moo dul waaja boo xamee sa jëkkër ci personnalité xam ko ci fulla xam ko ci dignité xam ko ci baax ak ci yiw xale bi lu mu tooy tooy da nga koy jël te xam ne du doon moom ak moom. dëgg la jeeba am na ci am na ci euh, patron de patron yoo xamante ne ñu ngi seen bureau yi gis nga jour bu seen jabar ñëwee ci société ba xale ba gën a jekk day laajte ndax am na jëkkër bu ñu nee sëyul kooku weer boobu du du du ko fekk bu fekkente ne am na baat ci jëkkëram am na am na ñoo xam ne ñoo ñoo mën seen jëkkër. bu ñu ñëwee ba gis genre jeeba gi ca bureau ba di di di kokki kokki ca bureau ba. di tegalaate café dina bu tegalaatewul café sax day laajte yàlla bu mu am benn koo xamante ne bëggul jeeba ci biir societé ba mooy dab madam ca biti wala madame woo ko am na ñoo xam ne ñoo seytaane nekk ci bureau yi ñooy ñooy fexe ba xam jabaru patron ba di wàcc jaar këram ak di ko netti la ca biro ba. jeeba yow jàppal ni mois prochain doo fa liggéey dalay dàq ñu ci bëri ngi takk seen employé ci seen jabar la jóge fekk doxaanuñu employé ba doxaanaanuñ ko mais dafa am kuy ñëw yu naan sa noom ba am ñoo xamante ne loolu ma la wax rek dañuy jógee ci bureau ba dem ci kër patron ba nekk ak jabar ja pour rek dafa am ñoo xam ne noonu dunguru la yeen yàlla bindee léegi yow kii soo fexee soo fexee ba sa jëkkër dàq kooku dàq jee ba ca bureau ba da koy fekk këram mhm. te da koy takk dangay xëy ñu takkal la ko nga xool sa wujj fekk ca bureau ba la nekkoon. waaw loolu loolu jëkkër ji la loolu jëkkër ji moo ñàkk fayda. jëkkër ji ñàkk fayda non non ba fay dàqul si xam nga lu tax ma ne la moo ñàkk fayda. yow munoo liggéey ak nit ci biir bureau bi. Mm-hmm. sa employé la ngeen am fu ngeen yem du sa mbokk du sa dara muy ñëw ba sa biir kër di ko toj te doo ci wax. non est-ce que bu ko fekkul ci biir kër gi am na ñi nga xam ne euh, Aïcha seen biir kër bu ñu bëggee xam lu fa ne bu ñu takkoo ba mel ni sayu naanaa lépp la ñuy xam. waaye léegi dama bëgg nga déglu ma jeeba man am naa koo xam te ne dafa nekk ci bureau di liggéey mais jabar ji xam nga nu muy def day jékki-jékki ne sarax ci bureau bi bu ñëwee mu ngi laami soo ak kii ya di dugganteeg ñi génnanteeg ñi bu. Ah, yow sa bureau jëkkër sa dugg léegi nga ñëw dugg ci bureau ba soo la fekkee tey ji benn Aïcha Ndaw bu toog da ngay songanteeg sa jëkkër ci biir bureau toogal sa biir kër toogal sa kër am na góor yoo xamante ne du du faible sax mais am na góoram dañoo noppi yaru bëgg du coow non loolu du coow moi je trouve pas que la tu sais la personne tu peux lui remettre à sa place euh, bal du tàq fetel du jóg du dëgg sa jabar bu ñëwee di laami soog ay secrétaire muy dugg di di rëy laamin fu ne mu dugg fa di wax ñàkk personnalité yow mun am na bien sûr que am na mais mun na ñibbi ca kër ga boo ñibbee ca kër ga nga toog nga lijjanti ko nga ne ko bureau bi mhm. du marché bëgguma ko fa laami soo su ma sañoon am yi am maanaay am classe yi sax fekkee liggéeyuñu ak seen jëkkër duñ taxawaalu foofu. xoolal artistes yu mag yi. mais du woowee bët nag. xoolal artistes ah waaw loolu wow bët loolu kay ci ñàkk maanaa la loolu loolu du kay loolu. léegi kooku dem na ba mu jëkkër dañoo tas. jëkkër dem takk beneen jabar sa mbëggee ruus sa mbëggee jeexu ci moom nga toppaat sa jëkkër di daw guddee bëccëg fekk sa fiiraangee tas sa sëy. waaw loolu nag mooy problème. waaw loolu laa lay wax parce que bureau yu bëri léegi da ngay gis bu xale bu añ jotee da ngay gis patron bi day yaatu waaw man liggéey naa foo xamante ne añ bi sama patron këram la daan jóge ndaysaan duudu mbuub ndaysaan añ yu neex añ yu neex su ma ko waxee mu ne ma sëla ngéwél ma koy nuyu ak ñoom zaal zaal ñaa ndaysaan bureau bu neex te partenaire transit añ ba këram la doon juge liberté 6 ñu àndi añ bi ñun ñëpp añ jabar ji di ku baax ndeysaan suñu añee ba pare dañ koy woo téléphone kontaan remercier ko day kontaan bu dee boo ko defee mu ne suba lu may togg ñu wax ko kooku mu def ko defu yéene bool bi day ñëw ñu añ bu suur añ ay sa ceeb yu neex yoo xam ne barki Rasulullaay kooku def ko mën yéene am na ñeneen ñoo xamante ne noonu la ñuy def léegi yow sa jabar soit day impliqué wu ci bureau bi des fois jabaram mooy indi añ bi ñu añandoog moom waxtaan mu ramassé waat yëpp dugal ci otoom yóbbu xam nga kooku laa bi ñëwul cherché wul xoolul mhm. lijjantewul mais supposons mu amoon benn seytaane bu nekk foofu ci biir bureau bi dab ko ci suuf ne ko dee togg di andi rek de sa jëkkër la teg bët noonu la ñuy def. suñuy lekk moo koy daggal. waaw moo koy daggal moo koy lee te kooku dafa def togg yéeneem andi ñu lekk seytaane ba ca bureau ba nag mooy ñëw nag yàq diggante ba nag ba yàqal koo xamante ne ma nga doon liggéey jàpp ñaambaram génnul ak sa jëkkër. génnul ak moom tey génnul ak moom suba moom laa lay wax moo am ci biir bureau yu bari bari nii man ñu ci bëri dama ko cee xam mais sama kooku moom saan duudu buub ndeysaan yàlla na ko yàlla gën a yokk bu baax a baax moom moom noonu la nekkee woon ak ñun. waaw ñoom zaal ñaa foofu bilaay wallaay bureau neex a neex a neex bay bëgg a dee. ba pare yaay yi nañuy waxtaan ak seen doom yi. àdduna bi instant yi nekk di fiire sa doom da nga am sa doom bu jigéen mu nekk xale doo ko may jàmm fatt ko guddi fatt ko bëccëg mais xale yi soo leen fattee bu ñu jàngi jee la def la ñuy bëgg a def dañuy waxtaan di nga nit dangay waxtaan ak say doom ci àddina mais di ko fiire teg ko choc ba tey jii xale bu jigéen dem na ba mënoo am jëkkër yow yaay mënatoo ko téye mu ngi dem nag de li nga ko doon tere ba mu nekkee jeune moom lay dem def daa day dem dem di dëkkaale wala dem fanaan góor ñi. dañu waxtaan ak xale yi ji nga nit dangay waxtaan ak say njaboot mais doo ko teg yenn fiiraange yi di ko ko ko ko bës day dem ba xale bi su màggee gis moromam yëpp sëy nañ moom sëyul lan looy obligé def. bu dul même bu sëyul sax dafay tax euh, góor bi njëkk ñëw mu dugg ci jotu ko xool pour am liberté am dem fekk fekk jotul temps sax jotul sax xool temps. parce que fii parce que fii la ngeen ko tere koo génn ba mu ba mu gis leneen dugg ci. paat ne dugg naa fa di Sidi Sidi Mbuub Sidi Mbuub ndeysaan rakk duudu la ndeysaan moom it mu ne ci bureau ba doon def lu rafet ndeysaan ñoo bokkoon benn bureau bureau bu neex waay. billaahi Sidi Mbuub waaw waaw Sidi sama xarit sama partenaire Mbuuba Jali ndeysaan Mbuuba Jali xam naa waxtu bi xoj nañu. fiiraange moom xam naa. aaw yi fiir yaa ñaaree di fiir benn benn ngi nii ak madame ah, ak ma ah, ah, ah yaajoor bi léegi léegi moom bi nga def nii moom boobu moom c'était spontané dañ la ne dañ la ne euh, ut dañu partage nañu utaay nga ne yàlla tere c'était spontané da ngaa fiir parce que jëluma Aïcha nangul da ngaa fiir mën nga ma jox keneen nangul nangul da ngaa fiir rek doom yaay moo tax waa ñu génn si loolu jéem a tàggool cinq minutes ñu mayoon jeex na bon man aw ma grand chose bu may wax lu dul xanaa di leen remercier yéen ñi ñu doon seetaan di leen jaajëfal di leen wax ne yàlla leen yàlla defal jàmm yokk leen ba ngeen yëg ko musal leen muccal leen yàlla defal ñu sutura ngeen yàgg ñoo seetaan chaque merc comme tous les mercredis ngeen ñu seetaan fii ci seen média ci seen biir euh, émission seen société donc à la mercredi prochaine. ok jeeba nee na mercredi prochaine moom ay tàggoom dama koo bëgg. ay tàggoom ay tàggoom. tàggoo yu soft lay def moom. Aïcha tàggooy bu chaque jour mu am fu mu bu ma bu ma bu ma tuumaal benn tàggoo mbër laa fi def benn tàggoo mbër yaa jor naan nii ay waay lii lan la <laughs> jéem a tàggool jéem a tàggool ndax Zabzo mi ngi may yónnee message yoo xamante ne. Adja kii Aïcha la tudd Aïcha tàggool. tàggu ñëpp di leen ne à vendredi incha allah ci seen société waa dee leen commentaire nag dee leen abonné ndax madame Ndiaye chaque jour mu xasee ñu ko dee leen abonné dee leen commentaire émission bi lu mu neex neex nag dee leen wax seen xalaat ci biir émission bi ñu leen di tontu incha allah loolu mooy tax tamit di kii ba pare xam ñu koy continuer tout le temps ñu ngeen koy ñaan ngeen di abonné di commentaire ndax madame Ndiaye di gis seen commentaire di ñu gën a wóolu di ñu gën a woo incha allah merci beaucoup. tey nag tey damay tàggu sama sama sama rak ju baax joo xamante ni ma nga ba Parcelles Assainies nekk fa couturière bu mag nekk jàmbaar ñu koy wax Aïda Mbène waaw Aïda Mbène di sama rakk ñu bokk benn yaay ñu taa Aram Diop. nekk ca Parcelles Assainies unité 10 taaram nekk ba Italie actuellement ak ñoom umu xayri ak sama doom yooyu Aïda Mbène di ñaw yu rafet moom i tamit waaw di dada kii baa nga tudd dada dada Aïba i Rasoul culture mi ngi nekk ca unité 10 muy ñaw yu rafet yëre boutique bu yanj bu ngeen fa demee du ngeen ko rëccu day ñaw yëre góor yëre jigéen cérémonie day ñawal ñi ñi ñuy takk ñi ñuy ngénte di dem ci ay foire di jaay ñi ñu jox ko bopp ndax yi muy jaay moo yomb te rafet te nekk original nekk ay yëfu qualité muy dada dada ay ba Rasoul Couture muy Aïda Mbène daw leen ko du ngeen ko rëccu téléphone am di 77 350 98 94 nekk sa parcelle unité 10 su ma fa paree buuxaat duggaat ba parcelle Aïcha génn gu ma parcelle ndax parcelle dama fa am sama beneen doom di nuy sama sama rakk joo xamante ni ñu ngi naan ko Bijou Niang moom it a jigéen ñi ay jàmbaar lañ ku nekk yaa ngi bay sa waar di def yu waay yu doy waar di jinaan jinaan holding jinaan holding jarul jarul brushing jarul lu mu tuddati sax simpot jarul dara cheve yu baax original cheveux lay jaay muy Dynane Holding cheveux yu rafet di defar ay jus tam yoo xamante ne boo ko naanee <laughs> boo ko naanee barki Rasulaay di nga prier ba passé fekkaat ko fa ah poñe ko ndax jus yi ñoo doy waar te neex billaahi wóor na Xalifa Maalik ma yaakaar jus yu neex lay jaay muy Djinan Holding ay chevaux daal doy na waar yëpp la am tey romb jeex na dina leen indi ci jus fii dinaa ko fi indi fii jeeba jus bi ngeen ko ñamee dootoo leen ko bàyyi billaahi laaj leen joli dootoo leen ko bàyyi jus yu neex sax nga ñamee doo leen tàqamti ku ñam leen seet mi ngi noonu jeex na du ma tëj nag te te te duggaatuma ci ci complexe Babia madame gay Gaye Massar kontaan naa nañ ci yow kontaan ci yow rek almaam mi waaw yaay Fatima mi ngi noonu ca Jili Mbay dawaat den ci moom mi ngi noonu ak yaa madame Gaye mu baax mi di tëjee nag nag sama sama sama sponsor officiel bi nga xamante ne moom du ma bàyyi benn yoon di sëy na bu jéey di Gandiol Couture nekk ci HLM Grand Yoff ci monument bi jéy ma Samba ak Yérim mi ngi noonu mu ngi noonu mi ngi ñuy pareel mi ngi ñawaat yeneen pour ñun nii dagg na ko keroog pour ñun waaw eh. mi ngi noonu fi mu toll ni couturière dañ ñoo jox boobu ndax xale yi ñoo jong ma loo leen jox gaa mais boroom daal yi gaaw leen ngeen jox ñu bopp nag ak borom saag yi tamit borom yére yi fu ñu génn rek ngeen génn fa ca des ak cheveux yi ak cheveux yi ak cheveux yi 17 la 013 48 72 ma nga ca atelier ba ak ñaari tailleuram yooyu di tay di di tayib ña nga fa baax bay bëgg dee waaw jóge foofu di tayib ak euh, nu mu tuddati sax moo du moo nga fa sama xarit bi ndeysaan Modou di sama <laughs> chéri ñoom ñëpp ña fa daw leen seeti leen leen ñu ngi noonu jigéen ñi ay jàmbaar la ñi fi tudd ñëpp ay jigéen lañ ñoom ñëpp ay jigéen lañ yal leen yàlla defal jàmbaar kenn seen liggéey xale yee woote liggéey takk ba dëgër di nuyuwaat waa Régie ndax gis nañ temps bi ngeen ñu dolliwaat kontaan nañ ci Nestor ak Gora Gora moom am benn problème mais kenn du Nestor ci kàttanu yàlla. Dabzo Dio nuyu nañ la Dabzo Dio. ñu ngi koy nuyu Dabzo Dio. mooy liggéey situation mi ngi nii dama koo bëgg. <laughs> waaye am naa. wante del toog del toog. du toog nag. <laughs> Mm-hmm. Aïcha bàyyi jàmbur. <laughs> di leen jox di daje incha allah ba beneen émission à la prochaine kontaan nañ ci yéen jërë ngeen jëf.